da ngay sopp la da ngay bëgg la lii lépp yow nga may soxla Fatou moom sëñ Sidi Moussa Lamb Laat waaye du ma dugg leen lii la ma sëñ Cheikh Ndigal defal rek yàlla yàgg fa tey si tey soxna si daa sol bi suba tey sama Baye Fall sa bàjjen mel noonu soxna Fatou moom sëñ Sidi Moussa Abdou Laat sëñ Cheikh Ndigal da koy fonk lool kii nag doomi sëñ Cheikh la nit ku baax la tànkee waajuram daa rek la jaar moo tax dong yi bëgg sëñ bi ñëwut woote wut moom ñëw ñëw fekk si ah sëñ Cheikh Ndiaye nee na jërëjëf soxna moom sëñ Sidi mu Cheikh Abdoulaye ànd naa ak ma waaye saa yi soo soo soxna Fatou mii sëñ Cheikh Ndigal Fall da koo fonk lool ndax sëñ sëñ Ndigal Fall Cheikh Abdoulaye diggante Cheikh Abdoulaye ak sëñ Cheikh Ndigal àdduna bépp xam nañ muy asgoor nekk daal te tànkee baayam jaaroon dong yëpp bëgg bàyyam rek a ko ñor liggéeyal bàyyam a ko ñor moo tax lii mu sosoo ko dikk te moo nekkoon te sëñ Saliou sëñ Saliou ba mu ndaw la ko sëriñ bi jox sëriñ Saliou sëñ bi nee a ñuy dagg ñu may ko tuuti ngir yàlla eh sëñ bi nag ñëw na ànd ak seigneur Lo soxna Faati ñëw na ànd ak seigneur Lo waay bi rakkaas yëpp xéewal yi daan toog di ko indi ñu dégg ne yaa ngi fii ñu ñëw fekk si ñu ñëw fekk si la ànd ak mbooloo mi ñu ñëw fekk te laaj Jóob lan daar mii nga xam ne ambassadeur ci Serigne Sall yow ba nga nekkee tout tànk la jox Serigne Sall cër bi moo tax baay Fall yëpp yéene na ko bu sëriñ bi wootee ñëpp ñëw seex Baye Fall kay ñu ñëw ànd nañu ak sëñ Abdou Khafour moom sëñu Samba Samba bokk yëpp ñëw nañu kon laaj Jóob nga sànni kàddu yi nag ñu lépp siyaare la ko ànd ak yow bis bi waaye wala Yacine ñëpp ñëw na ndawi Touba ñu déglu sëñ Abdou waaye di nuyu suñu mbokk donga yëpp nee sëñ Bàcc Xumba nee ak sëñ Abdou Lahad nee ak taalibey sëñ Cheikh Ndigal Fall yëpp nee ak soldaari borom ndigal yëpp nee tey nag bisu mbégte la nee li tax mu nekk bisu mbégte nee barab boo fi nekkee ba ñëwaat fi mais am na loo fi mos de kon fii fii leen sunu waajur sëñ Cheikh Ndigal Fall joxe woon ci sëriñ Saliou ne tudde nu Serigne Saliou Mbacké ne jëlit nu jox nu Serigne Saliou ne ñu nekkoon fi ne di fi jànge alxuraan di fi tarbiya ba tey ji ñu dellu siwaat fi ne xel koom ji xel koom ji yéeme la ndax daan naa ñëw ginnaaw boo jógee ci daara ji waaye ren jii dama am ndigal lu jóge ci sunu waajur sëñ Cheikh Ndigal Fall li nga na nga ñëw ànd ak mbooloo liggéey si ne sëriñ bi ñëw na fi léegi mën naa ni àggal gum Tuubaa fii ngeen taxaw nit fii la sëñ Cheikh Ndigal Fall taxawoon ne bi mu ñëwit saytu la liggéey bi nii ngeen def rek la def yéen ay xéwal yu bari andi fi jox ko mbooloom mi kon loolu sant nañ ci bu baax a baax mais ki ñuy liggéeyal muy Serigne Saliou Mbacké nee ko amuk fay la te moo ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba daan def ca mag ña donte yeyoowu ma ko man ma barkeeloo ko nee ma ni ko Mbacké ta yeyoo nga ko de ndax ndaw ñi mu defaroon yëpp mais fu ñu àgg dañuy faj gàcce waaye duñ gàcce loo mukk kon nañu xam ne Serigne Saliou Mbacké moom rek moom lañ doon liggéeyal te ndoxuñu kon na ko mbooloo mépp yóbbaale nee na àll bii ma taxaw ñaar ñi nekk sama wet ne doy nañ ma seere daan naa fi ànd man kese jiital ay nag di man kese booba lii rek laa doon wut kon ñëw na nee na mi ngi sant ñëpp di sant taalibe bépp waaye sëriñ bi bàcc xumba day as góor goo xam ni loo nekk ma nga ca moom sëñ Saliou la bëgg fii la léppe moom yëngu som yëpp sëñ Saliou la ku ñëw nag xel koom fekk fi ku dem bàyyi ko fi ndax léppam sëñ Saliou la te liggéey rek la xam te loolu mën nga cee seede waaw nee bàcc xumba moom sëñ Saliou mii ak Cheikh Abdoulaye ambassadeur Serigne Saliou ne tey boolewunu ndax démb moo nu boole moom mii laa njëkkaantal moom bàcc xumba ne màggali Sam Fall booba màggal gu métti laa màggal ne paas bu nu yóbbu sax amuñ ko woon ginnaaw loolu la ko jiitu bi nekkee ci daara ji doon ay tànk tànk soo ma saa tëdd si buru ne bàcc xumba rek laa gis nee na mooy jël pot def ci aw ñam fekk ma fa ma nekk mu jox ma ko moog Cheikh Abdoulaye ambassadeur ne ñii mënuma leen a fay te it ñu ma jàppale lañ lépp lu may def ne suñ ko yëgee ne danañ faj sama ajo ne ñu li may wax sama mbokk yi ak sama taalibe yi bu sama bët xongul ñi it ci lañ waaye ko santal xarab nee na mi ngi leen sant bàcc xumba ak Abdoulaye ne di sant soxna Faat di feddali la rek gi ne soxna mi ngi feddali la gi baax a baax jërëjëf waaw sëñ bi soxna de bi mu ñëw tey jii daa daa yóbbu yëf yi kër sëñ Cheikh Ndigal noir blanc xol yëpp sedd yàlla na yàgg mais ñu nga ñaanal nu baax nag ñaanal mbooloo mi ay tu tànk fépp te seen yéene leen rek la mooy liggéey sëriñ bi mais liggéey sëñ Tuubaa nag am nañ pas am yéene ji nee na nga ñaanal lu am ay xéewal muy Tawfekh ju